yàkkamte. léegi dama la bëgg a xoosal balaa keneen di ñëw. rek boo xoosal ba pare jubóowuñ nag. dinañ jubóo soobee yàlla dinañ jubóo dégg soxna si mi ngi wuyoo ci turu Oumou Ba moom nag mi ngi am njaboot ju toll ci juróom-ñetti bant te kenn rekk mooy jàng ci ñoom li ko waral mooy amul kenn ku jàppale ci xale yi seen papa daal di koy abandonné. ci ay waxam loolu moo waral mu dugg ci métier bi nga xamante ne moo di waasum jën ñu fekk ko fii di Soumbédioune muy Daan Dolem bu ma xasee ba ñëw damay ñëw wàcce fay ñu wàcceel ma taabal bi ma fay. ñaata. Euh, fanweer ñu wàccee taabal bi après ma daal di ñëwul lal dem wëri client. client nag yenn saa yi nga wër client te doo ko am. wala yenn saa yi nga topp client topp leen ba sonn ñu ne la waasuma nga ñëw nga toog noppaleeku tuuti nga gisaal keneen topp. yenn saa mun nga ñëw daal ba boor timis ay 500 wala saa ngay ñibbi bu ñu paree dañuy séddoo xaalis bi ku ci nekk li nga am rek moom nga. ñaari at daal maa ngi ci. lan moo ci dugal. Ah, xam nga boo nekkee jigéen amoo ku la jàppale rek te nga yor euh, kër loolu moo ci dugal. am nga borom kër. amoon naa borom kër waaye dafa tàggoog moom. ñaata bant. am naa juróom-ñetti bant ak moom. sa taw mi ngi xale ñu ngi jàng. kenn rek mooy jàng ki ci ñi ci des jànguñu. kan moo ciy jàng. Euh, mooy xale ku ndaw ki waaw. lu tax ñeneen ñi jànguñu. ndax awma ñu ma jàppale moo tax te seen këyit yi dafay lakkoon si kër dama amoon néeg ma nekk fa mu lakka seen këyit yëpp lakka ba si ba si man mii di wax ak yow sax samay këyit dafay lakk. ban année nga la sa néeg kool am na ñetti at daal ba ñeenti mu ngi dugg si ñeenti at ma dem tribunal am ku ma waxoon daf may jàppale ma yóbbu ay kayit ma am ay kayit ba yóbbu ko ñu triyande ma foofu biñ ma triyande si kayit yi ba tey daal ba lekk ci sama xaalis ma topp waa ji topp waa ji ba jotuma ma daal di toog jàpp si yàlla man xëy na dinaa am ku ma jàppale si loolu. moom nag yenn saay mbir yi dox marché neex mu daal di yóbbul njaboot ji lu toll ci mille jàpp 5000 francs CFA waaye nag yenn saay mbir yi daal di taggatémbe ba du yóbbul dara lu dul téeméer ak ñeent fukk. yenn saay ma ñëw liggéey suba teel ma teel a ñëw pour ma am dépense lu ma yóbbul xale yi yenn saay ma ñëw duma am dara yenn saay ay 700 500 1500 te xam nga loolu yorul kër. si loolu moo tax waaye ma ne xaaral rek ma jàpp si yàlla rek di yëngu ndax aw ma kenn ku ma jàppale. léegi lii jën bii nga lal nii yëpp ci kii bi ñaata nga koy wàcce. ah dinaa ko wax 2000 bu nangoo xam nga ñenn ñi dañuy mun nañ la gis nga ne leen 2000 ñu fay la 1000 francs wala ñu fay la ay 700 nit ki daal nu mu ragalee yàlla la ak nu mu ak rek la. ci léegi yenn yenn saay bu bëree ba bëri ñaata ngay yóbbu kër ga yenn saay bu bëree ba bëri yenn saay ma yóbbu 5000 yenn saay ma yóbbu 3000 yenn saay ma yóbbu 4000 bu gënee kii daal ma yóbbu 1500. léegi néeg bi nga nekk yow yaa koy yow yaa fa nekk yaa koy fay wala. néeg bi ma nekk man maa koy fay waaye depuis ma am problème sama yaay feebar nekk hôpital néeg bi daanaka fayuma ko maa ngi yor daal ay 3 mois yu ma war a fay. moo tax. léegi yow yaa ngi sa juróom-ñetti bant yëpp. sama juróom bant yi maa ngi ak ñoom. ani seen papa moom. seen papa da leen aband dañ ma daf ma abandonné ba ñu dem léegi man maa nekk ak xale yi. mais mu ngi ci dëkk bi wala am doo gisoo ko déggoo ko wala. même moom bu moom jógee seen dëkk bu ñëwee du leen du leen lijjante daal moom toppatoowul doomam yi faalewul ba nu mu demaatee nii. ban dëkk la nekk. moom mu ngi Guinée. moom fii la ma takkee xaw ma fa man fii laa xam maa ngi juddoo Fatick. moom mi ngi ñuy xamal ni amul wéeruwaay yaayam bi ko jur daal di ñàkk bakkanam ci ay weer yu ñu génn ñaari mag yu góor yi ko yàlla mayoo nit ñoo nit daal di faatu te tiis yi dañoo toppante. te yàggul sax sama mag ak sama yaay bu mu gaañee. ma xool tey daal lañuy sama yaay tey lay am 3 semaines 4 semaines depuis mu gaañu. si yaay yàgg na hôpital. sama yaay yàgg na hôpital mu nekk dans le coma. amoo ay mag yu góor wala ay mag yu jigéen. sama mag yu góor yi ma yoroon ñaar laa defe woon ñaar yooyu yëpp génn àdduna kenn ki dafa génn àdduna fu muy amee weer keneen ki tamit topp ci. mais am nga ay rakk. rakk yi ma yor kenn ki mu ngi sëy Guinée Bissau kenn ki bi sama yaay gaañoo mu dem dëkk ba. fan mooy seen dëkk. gine Guinée. Guinée Bissau. Guinée wala Conakry Conakry waaye man juddoo ma foofu man Fatick laa juddoo xaw ma fa daal daanaka fii laa xam. d'accord léegi comme ni nga koy waxee yenn saay marché neex yenn saay marché neex surtout période bii nga xamante ne euh, jën amul. naka ngeen di doxalee. Eh, daanaka daal ñu ngi ci dund bu bu daal ndax boo nekkee yow yaa yor sa bopp daal day xaw day métti si yow. bi ñu ko laajee ci lii di 8 mars Oumou Ba mi ngi xamle ni bés bi ñu jagleel jigéen ñi baax na naam waaye nag jigéen dafa war a góor góorlu amul góor amul jigéen góorgóorlu rek a am solo. ñu jéem a góorgóorlu rek saa yu ñu leen gisee rek ñu gën a sawar si daal du noonu. ndax boo gisee nit ki mu la muy muy yëngu si bépp liggéey boo xam ne moom ngay yëngatu danga ko war a jàppale ngeen nekk benn man daal noonu laa ko gisee. noonu nga gisee 8 mars benn. waaw te gën a góor góorlu daal. gën leen jàppale. kon daal yow sa philosophie tam tamit mooy jigéen amul jigéen amul. amul góor da nga war a fas jom. jigéen muy góor muy jigéen yëpp danga nga war a fas jom parce que boo fasul jom di nga def naka sudul noonu te jigéen lu mu war a def daal dafa war a góorgóorlu moom mooy ndamam daal. muy góor muy jigéen da nga war a nekk jàmbaar ba fu yàlla jàppalee rek. dañoo doon def natt waaye bu mu demee ba affaire bi dëgër mënutul ñoo def natt ndax day xaw a bu ñu waxee ne dañuy def natt di dem di jox suñu doom yi kër ga day métti si ñun. Ba ay atam taxut a kawe lool waaye daanaka dundam am na jafe ci loolu nag mu ngi xamle ni jigéen amul lu dul boppam te daan doole rek moo wóor rawatina nga doon jigéen te amoo benn weeruwaay li ma leen di appel daal mooy. bépp jigéen bu ñu gis daal muy muy muy liggéey daal nañ ko jéem a jàppale daal ñu xam daal jigéen yi tamit ñu góor góorlu ni ñu comme ni may góorgóorloo ak ma ak sama dëkkandoo yi samay am di jàmbale ni ñuy góorgóorloo ni bépp jigéen boo xam ne sama nawle la rek damay dem mu góor góorlu ndax jigéen amul bu dul boppam loo gis rek na nga fas jom fas jom nag si jigéen lu baax la